ma ne leen ah kon baax na naa bindaat maire lettre ma bind ko lettre le 27 octobre 2017 pour ne ko kat léegi euh, d'accord nan d'accord nga ci liñ la ñaanoon may nga nu ko defal nu ko demi di ramadan balaa demi di tabaski may too kenn ko def foire ci promenade bi waaye nag après tabaski itam foire bi dafa dajanteeg ouverture école ba tey métti na ci commerçant yi léegi nag nan dajaloo waxtaan pour ñu organiser foire yi nag mu jeex ndax coow li bari na mu jot ci lettre bi ñu déchargé ko mu jot ci ma dajeeg moom mu wax ma ne ma jot naa sa lettre d'accord naa ci li nga wax promenade bi sax léegi ni ñu fiy foire chaque mois loolu luuma lay luru dootu foire te loolu rafetul ci image su dëkk bi te bu yàggee sax foir dootu fi am njariñ dootu fi am xorom léegi li ma bëggoon mooy ñu dajaloo waxtaan ñu def benn foire international boo xam ne si commerçant yi ak UNACOIS ak maire de la ville ñoo koy bokk di ko organiser bu ko defee moom dina wut ay partenaire am andi dana def forum ci biir foire boobu defee dinañ ko wax chambre de commerce wax ko chambre de métier wax ko service yi nekk ci dëkk bi yépp bu ko defee ju def benn foire international comme ni ko Dakar defee comme ni ko Kaolack di defee Thiès di ko defee noonu ñu nekk ci waxtaan woowu euh, bi bi bi mu jotee ci lettre bi le le 11 janvier 2018 fi la yebal directeur de cabinet bi mu ànd ak délégation ñëw fi waxtaan ak man bi mu waxtaanee ak man ci maire nee na dafa bëgg léegi ñu organiser foire yi def ko benn foire international boo xam ne maire yi ak inaqua ñoo koy bokk di ko organiser ak commerçant yi ma ne ko loolu day wax dëgg yàlla bu amee moo nu gënal dina noppalu dina noppalu le 19 janvier directeur de cabinet ñëwaat fi ak délégation nu waxtaanaat ba tënk suñuy wax bi mu demee le 20 samedi le mille janvier 2018 ma daal di convoqué bureau exécutif bu UNACOIS wax leen maire yebal na fi directeur de cabinet le 11 waxtaan nañu yebalaat na fi directeur de cabinet le 19 waxtaan nañu tey jii le 20 nag damaa bëgg a waxtaan ak yéen wax leen lim ma wax bu ko defee ngeen jox ma condition yi nga xam ne moom ngeen bëgg bu ma dajeeg maire ndax war na maa dajeeg moom lundi 22 bu ko defee nu waxtaan ñu xamal ne ma d'accord nañ ci li maire wax nu def benn foire internationale ànd koog maire bi waaye nag foire bi ñun suñu mbira ñoo ko doon organiser bu ko defee maire tam moom forum bi invité ca ay ganam def foromam ci biir commerçant yi d'accord ci loolu wax ma condition yooyu ba ma tam le le le 22 ma ànd ak délégation boo xam ne commerçant yu bari ñi ngi ci biir ñu dem nu waxtaan ak maire maire xamal ne loolu ngeen wax d'accord naa ci te ànd naa ci foire yéen waa UNACOIS yéen a ko fi daan def ba tey itam yéen koy def mais nag ñun forom la ñuy def ci biir nu ànd ko ndaxte danoo ñun tam bëgg indi suñuy partenaire mu ànd ak yéen bu ko defee ñuy defar dëkk bi am na sax yeneen procès yum nu waxati ndax ne nu ma AIBD bu ñu defaree autoroute ay Thiès AIBD Thiès Ila Touba Thiès Tivaouane Thiès li ñu newoon Carrefour la loolu day daal jëmm jëmm nag jëmm ji day daal di ñëw taxaw bu ko defee waa Thiès nag dañoo war a pour defar sunu dëkk ndax dañ kenn du jóge ci àll ba ñëw dinu defaral dëkk bi ñun waa Thiès ñooy defar dëkk bi ko defee ñu defar fi ay centre commercial yu mag yoo xam ne ñun waa mairie dañ koo bëgg a bokk ak waa UNACOIS ak opérateur économique yi nekk ci dëkk bi yépp ñu bokk tabax fi ay centre commercial yoo xam ne bu boobaa ñun ñoo koy bokk pour Thiès gën a mën a dox ma ne ko ah loolu tamit day rafet na moom lool lool lool loolu sax moom bu ñu ci paree ba signé partenariat bi bu soobee yàlla dinaa ko wax président national na UNACOIS mu jàppale ma ci ndax mooy suñu kilifa te nu ëpp doole foofu kàddoom mën a yegg suñu kàddu mënu fa yegg ndax saa yu soxlaa président de la République dina ko daal di gis te ñun buñ ko soxlaa ci moom la ñuy mën a jaar pour gis ko kon léegi loolu maire yow danañ ci ànd bu baax pour def loolu muy samedi le 22 ci laa waxtaan ak loolu ak délégation commerçant yu bari ban fa jógee ma ne commerçant yi ñëw leen ñu dem ca bureau ba nu waxtaan ndax maire am na autorisation boo xam ne waa këram ñoo ko joxe fekkoon mu tukki muy le vingt cinq février bi euh, le vingt cinq janvier ñu war a def benn foire ci promenade bi léegi maire nee na autorisation boobu ay njabootam ñoo ko joxe fekkoon ci ginnaawam bi koy joxe nag tàgguwuñ ko mais comme moo leen joxoon ndigal jox leen euh, promenade bi ñu yore ko waroon nañ koo tàggu ba la ñu joxe autorisation comme léegi dafa bëggoon a waxtaan ak ñun pour ñu def benn foire. léegi bi ñu joxee autorisation bi bu pare waa ji daal dem ci préfet moom te mu jox ko autorisation pour mu am sécurité waa ji dem euh, Xelkom Basse wala Touba Basse ba joxe fa avance am tàmbali jaay ay standam bi ñu ci waxtaanee maire ñu ne ñu comme léegi sama njaboot def na ko ba pare li ma leen di ñaan mooy ngeen may ma foire bi jàll bu soobee nu waxtaan ak yéen ñu signante protocole d'accord boo xam ne partenariat la ñuy def maire UNACOIS jàppoo commerçant yi nekk ci biir Thiès yëpp ñu bokk def benn foire internationale. mu ne ko ah sëñ Abdoulaye de waxoon na ne gàntu man dana indi fitna euh, nangu euh, tege lees mënul itam dana indi fitna gàntu lees man dana indi fitna mais tege lees mënul itam day indi fitna. te itam li nga nu wax ñun dañoo war dund suñu giiru dund dañuy liggéey ci commercant la ñuy liggéey léegi yàlla dogal na comme foire bi 15 jours la 15 jours ñun du ñu yàqal suñu dund kon dinaa wax commerçant yi nu bàyyi foire bi jàll bu soob yàlla foire dootu fi am lu dul benn foire lañ fiy def boo xam ne foire internationale lay doon dëkk bi ak maire de la ville ñoo koy bokk di ko def loolu moo ne commerçant yi ñëw leen le 22 talaata di le 23 ñu daje ci bureau bi pour waxtaan mais commerçant yi dem ñoom xam naa topp seen yëpp gone ba def lañ def ah yàlla dogal ci liñ ci dogal ah, def nañ ci itam liñ ci war a def pour ñu bañ leen a bàyyi leen ndax ay commerçant lañu te ay xale lañu rek erreur du ñàkk te doom aadama day juum day fàtte day nelaw day wóote cër yooyu yàlla moo ko moom doomu aadama kon boo ko defee dañ koy jéggal te man tam wax dëgg yàlla may seen kilifa mais teewut autorité yi ma war a gis yëpp gisee na ma ak ñoom pour ñu bàyyi leen woyofal affaire yi xam ne dañoo juum te dootuñu ko def te loolu tam commerçant yi ginnaaw bi dem nañ ci ay kilifay diine ànd faak sax maire de la ville euh, ndawam muy directeur de cabinet bi pour waxtaan ak kilifa yooyu reconnaître ne ñoom dañoo juum ñu ko defaat kon loolu alhamdulilahi rabil na kon euh, noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp mbir yi noonu la demee loolu moo tax tey jii ma ne woon dama leen di woo woo journaliste def point de presse bu ko defee ñëpp jàlle ko commercant yi yëg ko bureau national yëg ko xam ne ñun noo ngi ciw yoon tey yoon wii nu jaar bu yàlla gis nañ ne coow yi doon am ci dëkk bi yépp ci foire yàlla mën na koo jeexal ci fan yu néew ndaxte bu foire bii bu jeexee danaa toog man ak monsieur le maire Talla la ak équipe technique nu waxtaan bind benn protocole d'accord partenariat boo xam ne UNACOIS moo koy séq ak maire de la ville ñu ànd di def benn foire internationale ci dëkk bi bu ko defee ñu liggéey sunu dëkk ndax man toujours dama naan Thiès laa dëkk aw ma kër faneen ci Sénégal benn kër laa am Thiès nekk mi ngi nekk cité kon man ci dëkk bi laa dëkk kon lépp luy suqali dëkk bi di doxal dëkk bi su ma ko yëgee dinaa ca def sama kem kàttan sant it ñi ma àndal ñuy defe noonu loolu laa ne woon dinaa leen woo woo waa maire ñëw teewe ko fekke waxtaan wi xam ne ñun nëbbu wunu làqu ndax li ñuy def dañ koy def mu ne fàng digg bëccëg te danoo bëgg ko ànd ak commerçant yi ànd koog waa dëkk bi ànd koog waa Thiès. président bu ma déggee daal si tënk. Hmm. Euh, bu ngeen génnee fii. Hmm. at bi yëpp daanaka léegi benn foire daal moo war a am promenade. benn foire moo war a am promenade ba. waaw benn fois rek moo fay am bu soob yàlla te UNACOIS ak maire de la ville ñooy ànd di ko def ba tey jii nag maire ouest maire nord moom wax na nag moom ne ko marché central ci sa commune la nekk te boo fi mayee foire di nga di nga indi problème yàgg waa marché central loolu tamit ma ko waxee ak maire bu nord xam na ne ma li feeg maa ngi fi moom du ma fi maye autorisation foire te boobu nag itam defa ko mais maire ouest daal moom moo nu sonal lool lool lool lool lool te bu nag lu ko jaral dina nu ko jaral mu nekk ci dëkk bi ñu fal ko mu toog fi cinq ans mën naa am cinq yi bu jeexee du fi toogaat nun nu continuer di nekk ci dëkk bi di fay taxi yi di fay juuti ji muy noor muy nawet mu di nu perturber di maye autorisation foire heure yu ko neexee te loolu jaaduwul ba ñu nu maye autorisation foire waxtaan ak euh, def naa ko bu dul benn yoon du ñaari yoon mm-hmm. commerçant yi nekk fii ñëpp fekk nañ loolu def naa délégation dem ci moom bu dul benn yoon du ñaari yoon mm-hmm. ba mujj sax su ma ko wooyee dootuma jël moom tam dem nañ ba quelque mu nag mujj mu di ma woo man su ma wootee du ma ko jël parce que dama ne dootuma toog ak moom lu dul léegi daf ma bind lettre jox ma ndax damay wax ak moom ci téléphone ba wax lépp mu dindi ko du ko def te man gor laa jullit laa su ma xasee wax man wax jooju daf may tënk daf may yeew léegi wetu champ de course amoon na foire moom tam mais euh, maire Pape Diop moom tam bi ñu waxtaanee moom waxoon na ne du ma maye foire man ci temps bi ngeen koy teree léegi nag danañ waxtaan ak moom moom tim pour mu bàyyi maye autorisation yooyu wala bu ko defee moom tim at mu nekk muy def benn maire bule def benn bu ko defee te ñu bàyyi di ko def ci Korité di ko def ci Tabaski di ko def ubbite école ñun ina quoi foire bii nu war a ànd ak maire de la ville di ko def duñ ko def ci demi di ramadan balaa demi di tabaski duñ ko def ci itam ouverture école ndax lépp loo xam ne commerçant yi bëgguñu ko ñun duñu def loolu lu commerçant yi bëgg def danañ seet période boo xam ne du koor du koor yi du tabaski du ubbite école nu def ca sunu foire nga xam ne si du yàqal kenn te du nu tooñ kenn mu nekk benn foire international ñu di ko def Thiès ci promenade bi bu soob yàlla loolu nañ ko séen te daan ko def comme li ngeen wax rek. Mm-hmm. Aliou Sow loolu mu def ak yow li nga def ay kilifa ngeen. mën mm-hmm. ngeen xool nu ngeen juboo mm-hmm. parce que yéen ñëpp ku ne njaboot moo topp seen ginnaaw ñu dénk leen wóolu leen. ku si ne également mbootaay ba nga jiite ak mandat la buñ wóolu joxaat la ko. ndogalu borom bi. Mhm. mais mais beneen laaj bi. Mhm. mooy bi mbir bi amee coow yi def ci am. Mhm. am ñu ne gis na ay xale yoo xam ne dañoo bokk ci ay parti politique ñu gis leen. ñu dugg ne. ay commerçant rek te duñu commerçant ba am sax ñuy wax. ne dañoo politiser kii ba nga xam ne Thiès te doyen aussi wàllu politique dafa am doole. est que mën nga seetal deru Unacois. que ne li amoon. du du Unacois. yéen aussi gëm ngeen ne kenn politiser wul seen mouvement. loolu question boobu question bu ma neex la. question bu ma doon xaar itam la tey pour nga mën a wax il faut dañ lay laaj ndax yéegi li li nga war a wax lépp mënta nekk sa bopp mais question bu am solo nga laaj ina quoi à politique ina quoi dafa am ñeenti ndombay tànk yoo xam ne ina quoi daf leen a tere amuñu droit nekk député amuñu droit nekk maire amuñu droit bokk ci benn parti politique ta feeñ waaye nag boo ko nekkul ñeenti poste yooyu bu nekkul ci yow bu la neexee mën a nekk maire bu la neexee man ngaa nekk politique ñeenti poste yooyu mooy président national amul droit feeñ président national femme amul droit feeñ secrétaire général national inapoa amul droit feeñ ci benn parti politique président mouvement des jeunes national amul droit feeñ ci benn parti politique mais ñeneen di am nañ droit feeñ ci parti politique waaye nag buñ ko defee inapoa buñ ko defee inapoa nañ ko defee ca parti ba wala ñu defee ji ko ca mbedd ba li nga wax dëgg la ay politiciens ñu dugg ci sunu biir rax ñu bëgg noo yàqal loolu tax bokk na ci li tax ma war a def point de presse bi te nun politiciens yi toog nañ ci yàqal ñu léegi dugg nañ ci gis nañ lépp xam nañ ne ay politiciens yu bari ñoo nekk ci ginnaaw xale yi mais ina quoi politikul ina quoi andul ci ña doon manifester ina quoi andul ci ña doon yàq ndax lañ lañ yàq alali commerçant ina quoi lu mu jiite commerçant yi kenn dina yàqal sa bopp benn affaire nag am na ci boo xam ne sii na deru UNACOIS setal na deru commerçant yi ci sàcc ndaxte manifestation bi mu amee procureur bi ma demee ci biroom pour waxtaan ak moom la ma xamal ne am na kuñ ci jàpp ku doon sàcc waaye du commerçant ma ne kon alhamdulilah rabbil alamin ne procureur moo wax loolu ci làmmiñam moo ne am na kuñ jàpp ku doon sàcc mais du commercant kon commerçant yi du ñuy sàcc mais ñoo doon yàq nag yàq bi itam commerçant yi maa ngi leen di diggal ne bu nu yàqati bu nu yàqalati kenn problème bu am nan ñëw fii ci bureau bi ñu toog waxtaane ko bu soobee yàlla solution dina ci am ndax mbooloo lu ñu bëgg te àndandoo juboo nekk benn yénente jàmm lu ñu bëgg yàlla cay ànd te dañuy am loola moo tax inaakuwaa d'accordul ci yàq d'accordul ci kuy jaay lu primé d'accordul sax kuy jaay lu seer dafa bëgg nit ñi ngay woyofal li ngay jaay ñoom boo jaayee lu bon ku ko lekk biiram metti wala mu dee bu deewee bàll boo lëgee da lay atte atte ku rëy nit te daf lay lakk ku jaay loo xam ne nit da koo lekk mu périmé biiram metti wala biiram daw wala mu feebar boo lëgee yàlla daf lay atte atteb ku lor loraate baaxul moo tax inaa quoi li muy digle mooy bu kenn jaay lu périmé bu kenn jaay lu seer ba ëpp na ñëpp jaay loo xam ne da nga ci am bénéfice doo perte ndax lu waa jaay tam daf ne bu kenn jaay perte kuy jaay di perte doo jaay ndax da ngaa di jaay di am bénéfice man da dundal sa njaboot mën a yokk sam réew beneen bi seen diggante ak benn problème. sama diggante ak maire Talla moom dafa mel ne ñu bokk ndey ak baay bo mel ne tam ñoo xam ne si ndax yàlla dafa dogal nag dañoo bokk koñ ndax mi ngi juddoo ci murit gi ci wetu teen bi maa ngi juddoo guy sombeel ci wetu jàkkay Tukulóor yàlla dogal bi ñu nekkee tam ay gone eh, ma dégg ko fan lool ci ni muy def yàlla dogal itam nag mësumaa wax ak moom ba nu tënk suñuy wax. ñu bind ko ak ñu ñàkk koo bind te ëllëg sa mu jalgati ko loolu moom mësul am kon nit ku dëggu la toog nan benn bis wax ko benn waaye mas wax sëñ Cheikh Mbacke Mbacke Balla loo mas a wax def nga ko sëñ Cheikh Mbacke déedéet yàlla moo moom lu mu wax def ko waaye man de lu ma fas yéene duma ko wax kon nag nit ki buy wax day fas yéene li muy wax mu jëf ko def ko yàlla jàppale ko mu def loola taale si la loolu laa gis si moom foire kenn moomu ko paar ñëpp ñoo ko bokk waaye nag dëkk luñ juboo luñ juboo loola moo yoon ndaxte kenn rek moo am droit mooy autorisation foire du préfet du gouverneur du kenn ku dul maire ndax maire la yàlla dénk moo yor ville bi moo am droit mooy autorisation foire maire dem na ba gis ne ñun ñoo fi doon foire démb ak bërki démb ba kenn dul foire ina fois moo doon foire ba tax jii ñëpp ñëw wàll si kon maire bu ñëwee ne dafa bëgg ànd ak UNACOIS ñu def benn foire boo xam ne international la déggoo li ma la wax UNACOIS ak commerçant yi bu boobaa itam dañuy waxtaan ak commerçant yi nekk ci dëkk bi yépp ku ci bëgg a bokk ñu waxtaan ni nga ciy bokke nga bokk ci ñu ànd def benn foire ci promenade bi. Euh, bonjour euh, très chers compatriotes et c'est moi Adama Niang vice-président de l'UNACOIS jàpp au niveau de la région de Thiès. nous avons eu l'amabilité de tenir une conférence de presse par rapport aux activités qui se déroulent ces temps-ci pour les organisations de foires qui sont un peu à, propos des commerçants de la région de Thiès. Sur ce, depuis le 20 octobre, le président du bureau régional, Inakwa Diapo, a adressé une lettre au, maire de la ville de Thiès pour dénoncer l'organisation des foires durant les périodes d'événements religieux tels que le ramadan, la corité et la tabaski. Par suite, le préfet du département de Thiès a convoqué tous les opérateurs économiques concernant par, pour les foires pour trouver un consensus qui leur permette d'organiser leurs foires en dehors des périodes contestées. Une réunion d'harmonisation c'est-à-dire c'est le mot protocole que vous en datez. C'était une réunion d'organisation, euh, d'harmonisation euh, qui a eu lieu à la Chambre de commerce de Thiès. Euh, la Chambre de commerce de Thiès le 28 décembre 2015 pour que les foires ne soient plus organisées du début du ramadan jusqu'au lendemain de la Tabaski. À partir d'octobre 2017, la mairie a accordé l'autorisation d'une foire durant la rentrée des classes, ce qui a fait des contestations à travers les commerçants qui sont dans la ville. Alors ils sont venus se plaindre au niveau du président euh, régional. Et le président, par sa courtoisie et ses, interlocuteurs, il est parti voir le maire en lui adressant une lettre pour qu'il souhaite une, de euh, rencontrer M. le maire par rapport à ces poires. là Et sur ce, le maire a accepté Lorsqu'il a reçu la lettre, il a fait une notification qu'il a reçu la lettre. Lorsqu'il a reçu la lettre, il a demandé que je vais, je vais vous recevoir ou bien je vais envoyer mon directeur de cabinet pour qu'il vienne dans vos bureaux pour que vous puissiez tenir euh, euh, une conversation à travers ces propos-là. Alors il a envoyé le directeur de cabinet ici présent. Alors, bon, on a trouvé un consensus par rapport à ces foires-là selon le protocole que le, euh, qui selon l'envisager de créer un protocole par rapport avec le mairie de la ville et et les commerçants pour créer une foire internationale. Sur ce, le, président national et le président régional ont juré et ont jugé que la région de Chine actuellement c'est une plaque tournante au niveau international parce qu'il y a toutes ces infrastructures qui sont déjà implantées au niveau de la région de Thiès. Donc on ne doit pas rester les bras croisés jusqu'à ces infrastructures commencent à prendre effet et nous on ne prend pas de dispositions pour pouvoir gérer ça. Quitte à ce qu'on a jugé que les foires, c'est bon, on ne peut pas introduire des foires, mais si c'est annoncé, c'est pas bon. Et qu'on doit préparer la région pour la sécurisation de la région, financièrement, humainement et juridiquement. Mais sur ces conditions-là, mais on ne peut pas gérer la région dans ces conditions. Si dans, l'avenir, les perspectives qu'on attend dans la région thèse puissent prospérer. Donc on prend les devants bien avant que cela. Et le maire a suivi ça, le président national, euh, régional a suivi ça, pour qu'on on organise les voies dans une harmonie extraordinaire pour que dans le futur, la région puisse en, émerger. Donc n'est pas mêlé à ces incidents du 24 euh, dernier Non, non, non, l'INACOA n'a jamais proposé ça. Parce que nous sommes une institution c'est que notre problème, ce n'est pas qu'on parle à n'importe comment. Nous travaillons avec des institutions. Le président ne parle pas avec n'importe qui, il parle avec les institutions. Et la mairie est une institution. On a parlé, on a, on a, arrêté de dire par rapport avec le maire. Et le maire nous a proposé des, choses qui, sont justes. Et qu'on dans l'avenir, ça va marcher parce qu'il il, il tient toujours à ses paroles. Vous reconnaissez que vous avez été infiltré par des politiques pour ne pas dire des politiciens. en tout cas, à, notre sein, on sent qu'il y, a, des politiciens à l'intérieur. Parce que par rapport au déroulement des événements, nous avons entendu des pardons, il y a quelques portions de, politiciens là-dessus. Mm. le problème avec le maire de la ville, quand il maintenant avec euh, euh, le maire de l'Ouest et celui de l'Est, Pape Diop et Aliso, Apparemment, eux, ils continuent à organiser des fois. Est-ce bon. prêt à aller les rencontrer euh, on l'a rencontré maintes fois. Mais, mais il s'est trouvé qu'il ne tient pas à ses paroles mais Pape euh, Diop, bon, on n'a pas encore tenu des, réunions en, bureau, mais il a parlé avec le président en tête à tête sur ce problème-là. Et on a jugé que lui aussi, je pense que si le jour qu'on va le rencontrer, on va trouver un consensus. Le maire Aline Diallo, vraiment, il a dit qu'il ne va jamais organiser le pouvoir parce que euh, le marché central de Thiers se trouve dans son, zone. Donc, il ne va pas créer des trucs sur cela. Euh, damay euh, jëkke wax ne ñu ngi dañu toll si tiis ndax tey xam nañ ne cees tey euh, kilifa gu mag aussi génne na cees muy sëriñ xalifa gay nekk kilifa si oustaz Tafsir Gaye te doomam bokk si conseil maire maire nekk ko fii ñun ñëpp ñuy tiis lu loolu di miti lu loolu di ko jaale njabootam di ko jaale waa Thiès tey maire yebal ñu fi pour ñu ñëw teewal ko fi ndaxte président Dame Diagne dafa oote presse bi dafa oo presse bi pour leeral li nga xamante ne moo fi xawoon si fan yi ñu génn ñu ne waa UNACOIS dañ dem yàq foiru benn commerçant mu oote nag pour leeral leeral boobu nag comme dafa am ay jéego yoo xam ne daf ko doxoon ak maire bi mu wax maire bu fi mënee yebal délégation pour ñu mën a teew mën a firndeel li nga xam ne moom lay wax ah loolu mu it ñun ñu ànd si bu baax parce que dañ ko dund dañ ko fekkee euh, euh, li ñu am dégg ko fan yi ñuy wax affaire yi protocole d'accord dañuy wax ne procès-verbal la woon benn réunion ñu tënk fa ay kaddu war nag doxaat yeneen i jéego pour gën a leeral loolu parce que kaddu yéen fa jël dañu commerçant yi dañu wax li leen metti si organisation foire yi am mu indi du am sooxe bu muy def si seen njaay ñu ne nag li leen gënal mooy ñu fexe déggoo ak kilifa yi ba benn fax di fi am Talla Sylla la ànd si loolu eh, ànd si di ko doxal te booba sax toogaay bi ñu waroon a toog nga xam dañ koy yaatal maire yeeg ñëpp bokk si autorité administrative yi bokk si loolu sax jotagul woon tàmbali kon dañuy wax ne procès verbal la ñu wax si ay kaddu ne nañu defe nii pour mën a organiser organiser euh, foire yi si biir Thiès ah loolu Talla Sylla la nekk si ah, lii nga xam ne moo xew te ñoom ñu wane ne bokkuñu si ñoo ñu ko def dem nañ si ay kilifa wala naa ko wax sax si français dem nañ si ay kilifa jéggalu xam ne ñoom ñoo jum fa ñu ko defee man dañ ma fa oo man mii directeur de cabinet ma dem fekk jataay ñu toog ñu wane ne dañu juum tooñ nañu ñu ngi jéggalu loolu mooy li nga xam ne lu am solo la nit nag bu defee jëf reconnaître ne juum na baalu baalu rek moo si tegu ndaxte ka nga xamante ne tax moom lañu ñu tooñ maire Talla Sylla si boppam oo na ko demandé ko mu jéggal leen mu nangu loolu président Dame Diagne wax la même chose mu nangu leen jéggal leen ndaxte moom la ñu tooñ tooñuñu maire tooñuñu UNACOIS xëy na bu ñu tooñ UNACOIS sax mbubboo UNACOIS bu ñu jël la bu ñu tooñee maire dañ naan défier dañu défier autorité si loo xam ne lii dafa tegu si yoon si bëgg jàmm si bëgg vraiment dëkk bi avancé moo tax Talla Sylla wax ne ne lépp tegu si suuf ah loolu nag bu amee ñiy oote pour leeral loolu ñun dañ si kontaan ñëw pour gën a feddali li nga xamante ne mooy taxawaayu Talla pour jàppale ñi nga xam ne ñooy les opérateurs économiques ñi nga xam ne ñoo nekk si Thiès loolu moo waral mu oote faar boobu moom taxawaayam yëpp te nekku fi te jàggulu ñëw li muy dox yëpp muy pour njëriñu Thiès dem na fi Italie yàggul la fa yobbu pour nan la meuna en ba mbalit mi kenn waxati ci Thiès amna fay dox même usine NSTS bi bu la njariñ la koy am kon lu jogul pour dire lor doomu Thiès dafa pour jappalé doomu Thiès kon nak dal moy li nga xamné mo ñu vraiment président Dame Diagne ak tout le bureau de non, lay maire buy wax institution lay waxal population yi lay waxal képp koo xam ne ki yaa ngi si dëkk bi di liggéey pour lu jëmee dëkk bi sa kanam dama lay wax ne porte maire bi daf la ko ubbil pour ngeen ñoom ngeen toggee wax leen baal